I'm gonna go to the

Shukr Shamani, Yona Sri Mama. كامل شق سمانيا يونا مربا ريغول بوم مك بودون واتي ليري كبلا سمي كو سوران ñun lañ ko jël su wàllu mul ko mala ko shriba yoonu bañul kërëm ba jale من زبان طيبة يونو باندو جاز بنيو جالي تبير مطربة شكو فلتو من زبان طيبة سالي سمنا عمر مو غانيا أبني ناواو بخرو باني تلانس ما سبقا mu ne yéen ñëw da ngay sëqal dëggal si seen yow aw fa

Hello,

mën a yey jure da ngay sarqal dëggal si seen loof na fa naawoon doo ya gëm leen leen bàyyi bara bàyyi bara dàq leen rek leen seen xol yi ma yóbbu iblis jàllale loolu leer na bàyyi bara iblis sëriñ la woon daf doon jàngal ñooñu asamaaw رم کا کو حلق دولن غائبا ہما ویل کو بچا پٹ کو فا مودے جپوس بوت کول بو سو فلا ایتا غائبا غائبا سکولن قبر بو دان سوف سی وسع سماو دبي كنا لولا قبل غائبا ما برهام sakku leen xambur bu leen projet machine bi la dem sakkoon leen du taxaw gëm leen bàyyi bara bàyyi bara addu nag lu doy ju ci biiram ku ci topp sa nafsu wala ngay dee rëccu gëm leen bàyyi bara ibu mu ne addu na baagam caala duy faj mar dangay rodda dee muy turu ngay rëccu gëm leen bay yoonu fay du koy ci xas soobu melel ku dee yëngu yëngu fan wa jeexu yoonu fay du koy ci xas soobu melel soldaar néew bu yëngoo fan wa jeexul bay bu dee bañ taxaw di ko tàgge mu jubbatu sooli doral mu dem dolee deewul ay ba bay bara ala nagama ya gayna ko dokku yor bi kanga do salatama siri bara ne yan gëbante boole ko xando xolil ci yàlla am na njitte yu ala jël bu ko ci xamul mooy Baay Ñas ibnu Abdallah yada ji coppe yu aana bay ba bay bara safara watul ndox sagar sagar watul mbiram waliw yàlla di ko diingal bay bara ibu mu ne garabam de moo de ñàkk juddu déggi moom du jaas loo seen booba kegga ñëw bay bara nit ki tax ñu rey doom yi nag di ta ñàkk ngor yàlla nga la ma ngay bay bay bay Seydi Bara moo de ceebo ceebo day wóor mu réew bu wasa teroo gàncax day naat bàyyi bara ceebo day tuku wer day kaamil uskurullah ma ñoo bare ñëw na Seydi Bara rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk taalibe bi noonu la wax jërëjëfe Baay Ñas ñu wax jërëjëfe Baay Ñas ca kaw jërëjëfe Baay Ñas ca kaw jërëjëfe Baay Ousmane Dieng jërëjëfe Baay Ousmane Dieng jërëjëfati alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di gërëm suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñaanal suñu baay suñu lépp baay Ousmane Dieng yal na yàlla may ko fanu gudd lool bu ànd ak wér-gu-yaram itam barkeel njabootu zahiram ak njabootu baatinam yëpp barki baay ña si bi ñu ngi nuyu waa bi yëpp awalan ñu ngi ciy jiital sëriñ bi nuyoo bu ànd ak ziyaara te itam bàyyi di la massaw ci mission sa sëriñ bii nga nekk mi Mawlana sa Ibrahim radiallahu anhu xam nañ say yëngu ak say dal say wax ak say noppi sa nelaw ak sa yeewu yëpp su fekkee sax danay nelaw parce que yonent yi borom bu sayri waxoon na ko inna loo xalban iza naamatil haynaani lam yannami wa zaaka wa zaaka min nubuwwati fa laysa yunkaru haalu muxtalim loolu la borom burda waxoon voilà ku leen sëriñ bi ñu ngi lay jéggalu ci dérangement yi ak tooñ yi ñu lay tooñ ak rëcc-rëcc yi te duñ ko yëg ñu ngi lay ziara bu baax itam di laaf ziara boobu ci mboolem ñi nga àndal ci délégation bi ku ci demee ni suñu yaay yaa su mbay mu ngi ànd moom nekk mun naa wax umul arifin balaa ñoo guddal rek dañuy def li bàyyi ñaanoon te mooy alquran nekk karaamaam te loolu laa sàkk ne am na ndax alquran moom foof fëggee ndaw yu bàyyi waxuma la sax alquran bi nga xam ne moom la ñuy liir ci téere bi waa alquran bi nga xam ne moom innahu la quranun karimun fi kitaabin maknun kooku nag moom laa yamassuhu illal mutahharun ki ñuy jox mu ubbil ñu alquran muy Baye Souleymane Badiane ñu jox ko mu ubbil ñu ba pare su ñu doog a ci programme bi bismillah Baye Souleymane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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين suñ paree ci loolu discours président daara bi la ñuy jox moom mooy jàllale mboolem kaddu ñi nga xam ne ñu ngi aju ci Baye Rahmane Fall nekk fii ci Thiès ak li ko wër yëpp nekk ay mbokki taalibe yu aju ci boobu ñu tànnoon kenn ci ñoom muy Baye Samba Balde moom mooy ñëw wax su ñëwee wax laafaale mboole mbokki taalibe yóbbaal leen Baye Samba bismillah jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfati Baye Ousmane jërëjëfe Baye Dramé jërëjëfe Baye Dramé jërëjëfate Baye Dramé ñu wax jërëjëfe Baye jërëjëfe Baye Niass jërëjëfati Baye Niass ginnaaw buñ sante yàlla ñu ngi julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa di gërëm Maolana Cheikh Tidiane Abul Abbas di ziar ñoom ñaar seen xalif mi Maolana Cheikh Ibrahim Niass ñu ngi jiital ci ziar bi suñu sëriñ suñu xarit suñu baay suñu buntu ji Maolana Baye Ousmane mooy Seydi Abdourahmane Fall ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak mboor barkeem mbooram yëngutam ci barakaati Mawlana Baye Ousmane di wax ni dañu wax rek ci làmmiñu bokk taalibe yi kenn ku ne ci xadara bi rek moo na ko def kon buñu ma santee tamit damay jotale rek di wax ni Baye Ousmane alhamdulilah bu ñu mayee Abdourahmane Fall may nga ñu ku ñu jariñ ndax bu doon ak moom rek ñu sànku moom moo ñu defar ba tey ku ñu gis bëgguñu ku ñu gis xemmemuñu suñu àddoo ñu dégluñu kon ñun Abdourahmane amuñu fayam bu ñu soxla mu jox ñu xataa sax dangay ngay mu dindi lu mu yor xañ boppam jox la kon may nga ñu ku ku jara may di wax ni wax ci moom wax dëgg neex yàlla dina nekk loo xamante dina tiis lool ci suñuy làmmiñ ndax bu ñu commencé rek xol day daal di fees day wax ñu luñ bëgg a wax yëpp ci Maolana Ba Abdourahmane Fall duñ ko mën a wax di wax ni dañuy gërëm beneen yoon Maolana Baye Ousmane Dieng Sala moom mu ñu may lii di wax ni Baye Ousmane mbokku taalibe yaa ngi nii ñu la bëgg lan naam xam nga ko ñu lay safoo lan ñu lay tiitooroo lan ndax ku mat nga wax dëgg na yàlla bu du woon ak yow rek ah sëriñ bi kon ñu sànku abadan dawaaman dañuy wax ni dañuy jotale rek di sant ñëpp mboolem dëkkandoo ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ndax gis nañ seen taxawaay ci bés bi ñii génn nañ seen kër ñii génn seen i néeg kon amuñu seen fay dañ leen di bàyyi ak bi mu fayal leen boppam di wax ni ñu ngi gërëm benn yoon mbooleem ñi nga xamante ni jàpp nañ ci bës bi muy ci seen xalaat ci seen alal ci seen doole ci seen xam-xam yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni yàlla na yàlla fayante ak yéen ci lu baax di wax ni Maodo Baye Ousmane mbokk taalibe yaa ngi nii soxla nañ alal may ñu ko nga xam naa ni man nga ko soxla nañ wër dafal ñu ko bëgg nañ gudd fan di wax ni suñ soxla yi bari nan ngir bëgg la defal ndax amul sikk ni suñu suñu dund gi suñu dee gi ñun yow rek lañ bëgg di wax ni kon jox ñu ngir ñu mën laa defal lu bëree la bëree bëree bëree bëri bëri Mawlana Bass di wax ni ah dañuy santaat yàlla bu baax a baax a baax di wax ni bokk taaliba yëpp ñu ngi sàkku kenn ku ne wax ci làmmiñam Baye Ousmane Dieng saala yàlla na fi yàgg te wër Baye yàlla na fi yàgg te wër Baye Ousmane yàlla na yàgg lool te wér ma zalika alallahi bi aziz Seydi Samba Balde Samba moom yaakaar naa sorewut ak samp yal na yàlla samp la ndax kaddu yi kaddu taalibe la dañuy bañ a guddal ci kaddu gi rek ñun ñu ko yore nii ñu daal di brastiku daw dem ci marraine bi muy Seyda Aji Baay mu ñëw yëkkati ay kàdduum su paree ñu jàll dem ci keneen incha allahu taala ah waaw Baye Moussa Diagne sëriñam moom la wax ne moo koy waxal Baye Moussa bismillah لا إله إلا لا إلا الله لا إلا الله إن لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله ينصرف لا إلا الله لا إلا الله الله جن سلام لا إله الله لا إله الله لا إله الله جن سلام لا إله الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Mawlana Cheikh Ibrahim ñoo ngi sant suñu sëriñ Baye Ousmane yàlla na fi yàgg te wér yàlla dolli ñu ci leeram joxe suñu mboolem càkkutéef di nuyu suñuy sang muy Seydi wa Mawlaaya Baye Dramé ñoo ngi koy ndokkee lu baax di ko ziyaare suñu maam ju baax yoo xam ne heure bu ko gisee ci jataay yu mel nii dañuy gën a bëgg ndax bokkoog suñu sëriñ Baye Ousmane si tànt rek mbégte la waaye mu benn ak soppem boobu sangam boobu di Baye Dramé nga xam ne moom bu gisee Baye Dramé rek da ngay gis jëmmam ji dafay soppeeku ndax mbëggeel gi mu am si jëm di tëdd ji nga xam ne dëgg-dëgg drapeau fay di la Baye Dramé dafa bëgg ndaw lu sawar bëgg ndaw lu am xam-xam ba tax heure bu nekk dafay wax ne nañuy wax loo ndaw ñi moo tax boo nekkee ndaw di góorgóorlu ci faydi bi am xam-xam Baye Dramé dalay fonk lool dalay bëgg lool dalay yëkkati yëkkati tam kon ñun ndaw ñi nañ góorgóorlu te xam ne Baye wax ne bii wa bii yur fooful jawru azimu innahu bi fay dinaalu diinu rafqa liwaayi bàyyi ne si man si lañ dàqee tooñ gu réy ñu ne ko bàyyi lan mooy tooñ gu réy googu mu ne mooy bokkale yàlla kon ñu wax jërëjëf Baye Ousmane ba nga xamee ne tooñ gu réy moom moo ñu xottil hijab boobu ba tax ñu nekk tey ay ndaw yu sell yi jublu yàlla yu dëñ si bokkale yàlla te alquran moo wax ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfira ma duna zalika liman yashaa bakkaar bu nekk yàlla mun na nee na mun na ko bale ba mu des bokkale kon nañ fexe wuti sëriñ bu ñu xàggal ci yàlla kon ñoo ngi sant yàlla bañ amee sëriñ boobu nga xam ne tey ñun ñëpp moo ñu génnee ci kéefër googu ñu nekkoon ndax réer rek doy na kéefër kon jëmm ji tedd jii di Baye Ousmane moom moo ñu génne ci zulmaan yi boobu ba def ñu nekk ay nit ñu nite def ñu ay ndaw yoo xam ne suñ dund yëpp jeexal nañ ko ci liggéeyal jëmm ji nii kon ñoo ngi ndokkee bu baax Baye Abdourahmane Fall mi nga xam ne moom moo ñu may jetaay bu taaru bii at bu nekk mu di ñu ko defal waaye saa bu ñëwee gën a gis mu gën a neex gën a taaru ndaw ñi gën a sawar di gën a wane seen bëggeel lii rek la Baye Ousmane bëgg ay ndaw yuy wane résultat te Baye Rahmane si ñooñu la bokk saa bu wootee nga gis ne résultat am na kon yal na yàlla sàmm xaal bi yal na yàlla saxal xaal ji yal na yàlla dëgëral ndaw yi nga xam ne ay Baay Faal lañ benn bés maa ngi waxtaane Baay Usmaan si Nord Foire mu ne ma yàlla na am ay Baay Faal comme ni ko Baay Rahmaan amee mu ne Baay Rahmaan dëgg-dëgg ay Baay Faal la am kon képp kuy woote kat ña nga ña la topp di la liggéeyal taxawuñ ma xam a Baay Faal sa liggéey day soxe donte sëriñ bi mat na waaye seen liggéey na mu war a doxee dafay dox daf dafay des te Baye Rahmane Baye Fall yooyu la ko Baye Ousmane tàggatal kon yàlla na seen ànd ak moom gën a dëgër bu ñoo guddal aji di ndaw loo xam ne dëgg-dëgg si góor yooyu Baye junjoon amul si kenn si la bokk ku bëgg xadra Thiès bi ndax damay wax ndar ak Thiès ak yoof munoo xàmmee taalibe yi boo ñëwee yoof da ngay gis ne waa Thiès rek ñoo fa nekk ak waa ndar boo ñëwee Thiès it da ngay gis ne waa yoof yi ñoo fi jaxasoo nga dem ndar tamit kazalika ndax ñun ñett ñi duñ ci duñ duñ ñett benn lañ kon yal na yàlla gën a saxal àndoo bi aji bàyyi mun a gërëm na bu baax Baye Rahman ci bés bu rëy bi nga ko tuddee ndax lu toll ni ziyaare Baye Ousmane nga tuddee ko dëgg-dëgg yëg-yëg mun tawee si loolu nee na kontaan na bu baax moo ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla gën a dëgëral sa taxawaay sa ànd ak sëriñ bi yal yàlla gën a feeñal sa ay mëdët si barke Cheikh Ahmed Tidiane yi bugguñoo guddal ndax ñi war a wax dañoo bëri waaye gërëm ñu ñëpp set nañ ñëpp ana aji baay comme munoo wax kaddu bi yaa koy joxe yëkkati na enveloppe jox la ko ngir wane mbëgteem ci guddi gi nee na xeb na ko lool waaye gërëm na la sant na la an mu Ceerno Tukulóoru Baay Cerno Asan waayu baay baay Rahman baay Cerno Asan waayu baay Cerno Tukulóor baay Cerno Asan waayu baay baay Rahman bismillah kulóor baay cerno ak salwa yu baay baay cerno tu kulóor baay man maay nangu bagage salwa yu baay yàgg tu kulóor baay cerno ak salwa yu man baay cerno tu kulóor baay cerno ak salwa yu baay tu kulóor baay cerno ak salwa yu baay su ko defee suñu sëriñ lañuy woo Ah, suñu mbokki taalibe Baye Ndiba a ah, xam naa ne xaal nekk jamono ji ak mbégte mi mu nekk jamono ji moom ah, boo ñëwee rek nga wàlluñu ci ndax ku takk ñaareel matagut une semaine ñu tuddee la gàmmu nga ñëw ak sa dara dëgg-dëgg xaal boobu jamaal la <laughs> yow la ñuy jox kàddu gi rek nga yëkkati <laughs> yaa ngi den nag Baye Baye Baye Lin Ndiaye ak Baye Buuba xam naa ne xaal boobu sax man wax gu ma ne soxla naa ko waaye ñooñ moom wàllal ma leen ko rek baax na bismillah alhamdulilah ñun ñëpp nañ wax jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfe Baye Ousmane li tax ma njëkkee loolu yonent bi moo ñu wax wa atul buyooti min abiwaabihaa néeg balaa nga cee dugg da ngay jaar ci bunt bi moo tax ma ñëw jërëjëfe Baye Ousmane ndax mooy suma bunt ci Baye ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu di gërëm suma sang suma xarit walla Baye Dramé Dramé Thierno yàlla la yàlla yàggal fii tey dañoo bég dañoo kontaan xam ni bis yëpp bis la waaye bis bi bis la ci bisu yàlla yi yàlla nañu yàlla dimbale bañ xam bis bi bàyyi maa ngi lay seedeel ni bàyyi raxmaan lii bu ma ko tuddee du alal waaye kóllëre day feddali moo tax mu tuddee ma ko ndax seexu tijaan jàngal nañu ci kóllëre Cheikh Hassan Deme jàngal nañu ci kóllëre ndax moom la bàyyi waxoon jëlal fayda bi kon lii bokk na ci taalam yim taal jaaree sa loxo maa ngi lay seedeel ni Baye ku baax la ku am kóllëre la ku bëgg Baye Ousmane la ndax taalibe du njaaloo su ma waxee taalibe du njaaloo nag ñu déggul mën nañ ko déggee feneen taalibe du ndax Cheikh Abdoul Baaxe dem moom laa déggee mu ne taalibe nekkul fu nekk bunt bu nekk da war a summi dàll kon kenn ku nekk ki la àggale ci yàlla jàppal ci moom te xam ni kooku la la bàyyi booleel bàyyi Usmaan lii yëpp ca mbaax la man awma dara mënuma dara waaye xam naa ni bëgg naa Baye Ousmane te Baye Ousmane kenn du ko bëgg mukk di des ginnaaw wala ngay torox képp kum dal seetaatal sa bopp ku ànd ak moom danga nga yokk ndax bàyyi da àndal moo ko maas moo tax ku ko jege mu maas la bàyyi raxmaan ku baax la yal na yàlla fayante yow ci lu baax bëggoon naa defar photo jox la waaye danga ànd ak say sëriñ ñu seet si la nga war leen dalal bëggoon naa xotti dara jox la waaye rafle ndax sëriñ bi yiir na la waaye am na lu ma yor barewul danaa la ko jox jërëjëfe Baye Ousmane alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa radiyallahu an qadmil muhammadiyil akbar wal katmil ahmadiyil anwar seydil aarifiina wal mulku fihim waarisul mustafa al aliyu al azimu al qaa'il ana rajuluha min qaafin ila qaafin wa radiyallahu an waarisi sirrihima cheikh bi jamii maratibihi wa lisaani waxtihi wa nuuri zamaanihi al qaa'il wa sirri sara fi qafiqayni wa uqimat fi wuquna alaw hatta yaqulu jadidu ya ahmad alcheikh ukhbir lana bi hadha almahdari wa ta'tafi bi nazratin tahtilana bi zafri la hawla wala quwwata illa billahi alali alazim hasbuna allah wa nihma alwakil ñu àndoo wax jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfe Baye Ousmane jërëjëfati Baye Ousmane Dieng jërëjëfe Cheikh Mouhamed Dramé jërëjëfe Cheikh Mouhamed Dramé jërëjëfe Cheikh Mouhamed Dramé mbokk yi ci yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla wàcc ci ay xalifaam ñu ngi nuyoo taayu yàlla yi fi yëpp yépp ñu ngi jiital nuyoo Mawlana Cheikh Mohamed Dramé bàyyi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér ñu ngi lay wàcce wàccuwaay bi la yàlla wàcce di la waxte di la wax ne mbégte bu rëy la ci gis la ci biir jotaay bi nga xamante ne sa jàmbaar ji moo la ko muy Mawlana Baye Ousmane ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ñu ngi nuyu Mawlaya wa habibi wa seydi Baye ak njaboot ju barkeel jim àndal lu ko daggee ci soxna ci doom ak i taalibe bàyyi ko ci barab bu sell ba mooy medinatul daaru salaam bàyyi ñu lay nuyu bu baax ñu ngi xeesalaat suñu mbëggeel di yeesalaat suñu cofeel di yeesalaat suñu dëggu di yeesalaat suñu kàndoog ci yow ndax ku ko jar nga Baye Dramé ngeen baal ñu dinañ ci wax tuuti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fekk Cheikh Ahmed Tidiane ci abi samhoon ay at yu bari muy wéttal borom mu ne ko bàyyil lépp li nga jàppoon ma jox la li gën la bàyyil mboolem sëriñ si ak seen tariqa yi ana mu rabbika am maay ki lay jar yow da ngay enn suma mbóot da enn sumay leer yow suma doom dëgg nga yow suma doom dëgg nga yow suma doom dëgg nga xabisam bi nga xam ne nag bu moo ko wax tey mooy Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu sang bu tedd bii di Cheikh Mouhamed Dramé ci xuntu moomu la ko Maolana Baye Ousmane Dieng fekk mu bàyyiloo ko lam jàppoon te ñun ñëpp xam nañ ñu Baye Ousmane jàppoon mu jox ko li waaye nag niyaabatan comme nu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon Cheikh Ahmada Tidiane anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan ñëpp xam nañ ne Baye Ousmane jaamu Cheikh Mouhamed Dramé la ñëpp xam nañ ne Baye Ousmane doomi Cheikh Mouhamed la ñëpp xam nañ ne Baye taalibe Cheikh Mouhamed Dramé la ku ko bëgg lool ba yemalewu ko ak dara lum nekk sang-sang si jotaay si Cheikh Mouhamed Dramé ne juux rek mu sub mi mbubab càng sol mbubab jàmm yaa ñu ko gën a xam waaye ñun nag alquran dafa wax ne wa ma shahidna illa bi ma allimna sang bu tedd bii nga ñu bàyyeel mooy bàyyi Ousmane Dieng ñun ci moom rek la ñuy toppee ni la ñuy royee ni ñuy àndeeg sëriñ ci bàyyi Ousmane rek lañ koy royee ni muy jëflanteeg yow kenn du dëgg Baye Ousmane jël micro te waxut jërëjëfe Cheikh Mouhamed Dramé Seydi yaa gore ba yaa gore ba yaa delloo buum ca mbooy mbooy ba ba yow fàtte woo foo jëlee teraanga fatte woo ki la jëfal xéwal fàtte woo ki la fekkoon nga nekk ci xur mu yóbbu la ba nga kawe ñëpp mooy sang bu tedd bi mooy Mawlana Cheikh Mouhamed Dramé moo tax ñun yu am nañ royukaay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawmal axir anta baay usmaan ayna baay usmaan ci yarga ayna baay usmaan ci tabega ayna baay usmaan ci wane mbëggeelam ci sëriñam taalibe du nëbb sëriñam taalibe buy nëbb sëriñam da ngay suufee doo yëkkate ko ba pëccëb yàlla mun nga ne fërr mu mel ni xorom buñ sànni ci biir diwlin bu tàng waaye yàgg-yàgg mes kii du ñuy nëbb yàlla moo ko feeñal dootul suux jant la boo xam ne dootul suux bu pëncëb yàlla waaye lépp mu ko amee ci sangam bii di Mawlana Cheikh Mouhamed Tall jotaay bi dafa am benn laay alxuraan bi may sama ndaay yow ma yaqumu ruuhu wal malaikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man asina lahu rahman wa qaalu sawaaba loolu tey la jotaay bi di jàngale laay jooju la jotaay bi di moo tax ñu ngi sant yàlla ci Baye Ousmane bi nga xam ne lu nekk bëgg nañ ko jëfat ko ko ngir moom parce que daf ñoo defal loo xamante ne kenn mënuñu ko defal xoolal al Ousmane yu mu toll ñëpp doon ñëw ci moom dañoo takkoon tilim ñépp seen waa kër soxla wuñ la amoo dara du xam-xam du wilaaya du maqaama du daraja du maarifa du dara nga ñëw ci moom kale yu ndaw a bas âge mu leen di fal ci falam gu mag du def ay xale yu ndaw ay muqaddam pays bi yëpp di ko critiqué naan Baye Ousmane dafay ijaazaal ay xale mooy liñ joxoon Baye rek Baye da ngay ñëw tarbiya soobu mu jox la ijaaza ñu ne ko ah kii démb la ak da koy jox ijaaza mu ne sirru bi ma yàlla xamal ci moom moo tax Baye man yaa am bët yu xool bët moo tax xale yi xoolee loon ci seen xale waaye yaa ngi leen di xool ci seen mag ci seen mag ndax yonent bi waxoon na abal juhayfa salil ulama wa xaalitul hukama wa sahbil kubara ñun yàlla moo ñu boole ñu ànd ak mat bi mooy Mawlana Baye Ousmane Dieng nañu wax jërëjëfe Baye Ousmane tey bésu ziyaaram la tey amul gàttal tey duñ doon fatiha waaye dañuy doon baqara tey kii ku ko jar la ku ko jar la Baye ku ko jar la bésu ziyaara la de te Baye waxoon na ne ziyaaratu arbaabi tuqa marhamu yabri wa miftahul abwaabil hidayati wal ziyaare góor yàlla yi nga xam ne dañoo ragal yàlla pomaat la buy fomp ay jàngoro Baye li nafsi aybun lil fuhaadi aybun li ruuxi aybun laysa fihi raybun suñu bakkan yi dañoo tirim bàyyi buñ ñëwee toog sa rek ñooy gën a set ku yàlla bind waaye buñ delloo suñuy barab rek tilim song ci bakkan yi ci xol yi ci ruxu yi mën nga ñu ko dindil dañoo bëgg set wecc buñ jógee fii bu buñ demee suñuy barab tamit ñu continuer set googu parce que bëgguñu ñu jamee ñu jam la ci ñun Baye Ousmane ku yaru la kon ñun dañoo war a yaram Baye Ousmane ku tabe la kon dañoo war a tabe Baye Ousmane ku bëgg sëriñam la kon ñu dañ ko war a bëgg liggéeyal kenn ay junni di la loolu du ñàkk fayda kii Cheikh Mouhamed Dramé rek la liggéeyal cinq continents yëpp di ko liggéeyal mbëggeelam ci góor gu tedd gi rek la ko yàlla di fay Baye dundal wéral Baye dundal wéral dundal wéral dundal wéral waaye nag gàcce ngaalaama sa jëwriñ ji Cheikh Abdourahmane man dama ko ñee ci mbëggeel man damay damay ñee ku ma gën a bëgg Baye Ousmane rek laay ñee ma ñee ku ma gën a am alal du ma ñee ku ma gën am daraja du ma ñee ku ma gën a am xam-xam damay ñee ku ma gën a bëgg Baye Ousmane ndax bëgg Baye Ousmane la adduna ak àllaaxira bëgg Baye Ousmane xam-xam la bëgg Baye Ousmane wilaaya la bëgg Baye Ousmane bëgg Baye Ousmane bëgg Baye Ousmane yal na yàlla dolli sa ndimbal yal na yàlla dolli sa sutura yal na yàlla taxay alam bi yëpp ñu ñëw uy si la ndax yow booy liggéeyal Baye Ousmane dangay ngay intimaas sa bopp ci Maolana Baye Ousmane Dieng comme ni ko Baye waxee woon wa aleykum bil intimaas fii cheikh yi effacé leen seen bopp ci sëriñ bi Baye Ousmane wanewul boppam Baye Baye Rahman wanewul boppam benn yoon Baye Ousmane rek Baye Ousmane rek Baye Ousmane rek moo tax Baye dafay def te jëlli ci yow ku la gis gis Baye Ousmane ku la dégg dégg Baye Ousmane ku jëflanteeg yow jëflanteeg Baye Ousmane Baye Rahmane dundal wéral yal na yàlla feeñteeg yow ci lu baax. ñoo ngi sant yàlla di ziare sëriñ bu màgg bi sëriñ bu tedd bi di wax ne ñëpp wax ne jërëjëf Baye Rahmane jërëjëf Baye Rahmane jërëjëf Baye Rahmane wax jërëjëf xam ne néew nañu ko xam Sénégal tey dëkk bu xat bu rukkee boo xam ne boo fay ñëw daal di nga sonn lool ñu koy wax kepp xaar ay séeréer lañu ñu ngi woon ci biir aéroport fii ñu tabax pavillon tey président euh, pavillon présidentiel bi foofu moo nekkoon suñu dëkk ñun nag fa lañ nekkoon ñëw na ñu toxal ñu ci benn dëkk bu ne ci kanam mu ci déplacement léegi nga biñ fa ñëwee nag ma ñëw ci moom ma ne ko Baye Rahmane toxal nañu ci lékk bi te amul kër bëgg naa nag nga ñaanal ma yàlla ma am kër samedi la woon altine ñu may ma pàkk ci barke Baye loolu sëriñ bi ñu ngi koy seede tey ñu wax ne nag ah sëriñ bi kontaan nañ ci yow yow ak sa taalibe bi nga xam ne mooy Ousmane Diouf ñoo bokk benn kër ñoo bokk lekk ñoo bokk naan ñoo bokk lépp Ousmane Diouf dëgg muy ku déglu boo xam ne xaaral daal sant nañ ci yàlla bu baax a ndax saa yu toogee suñu xadara dañuy yokk ci yàlla waaye dañ daf ñuy gën a xiir ci ëllëg wax naa ne xadara bi ñu bokk tey ñu ngi yokk ci Mawlana Cheikh Ibrahima Sall te lépp njaboot Thierno la wala jokk waaye nee naa leen nuyu Serigne tey bi ko sukkal maa ko andi ci suñu xadara te ci Baye Ousmane Diouf laa ko roye ko ci moom ba ndaw yëpp ñu ngi sukkal Serigne kon loolu Serigne bi ñu ngi koy seede tey xam naa kàddu yi rek dafay jaxasoo Serigne bi ah yow am na cër boo jox cër bi wallahi réew amuñu dara nag ndax xam nga sama xaal aw ma dara tuus te naa rek bu ma fi jógee Baye Ousmane ma liggéeyal bàyyi ci àll liggéey ba Ousmane ci alal liggéey ba Islam ci alal liggéey kenn loolu moom maa ngi koy maa ngi la koy sant kon Baay andi daal xam nga ko ñun amuñu dara Baay dafa waxoon ne képp koo xam ne gis na xadis bu boo xam ne yonente mos naa julli yor loxoom moo xam bu wér wala wérut bàyyi neen andil boobu boo ko andile bu may na sama moomee yëpp sama moomee mooy téere ñun nag téere la ñu ak tuuti weccit boo xam ne ah xanaa jëlal xal yu ndaw yi tàngal rek loolu daal li ci andi bu fas yéene la koy xam ne amuñu dara lu lu mooy loolu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal yàlla di wax ne Baye Ousmane daal Baye Ousmane yal naa mel ni Baye Ousmane ci ëllëg ci bëgg nit ci yërmande ci lépp nag ndax Baye dafa wax ne te it nga xam ne laa yëngu dama ñu gën dégg-dégg maa yërmande yàlla ca képp ku bëgg kii maa ngi toog loolu gis nañu ci bàyyi bàyyi Ousmane kon sëriñ bi ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi bu baax a baax lu ëllëg sax ma taxaw sa kanam bi la waaye ku nam sa xalaat ku nam sa maataan ku la bëgg la waaye Ousmane ku la ku ma kii bàyyi Ousmane xam na ci dara damay wax ne dëkk bi ma nekk nii li ma fay gént bàyyi Ousmane bëri na te bàyyi Ousmane mosuma janoog moom ci ay kàddu kon Baye Ousmane ñu ngi jéem a ci kàddu la kon Baye Ousmane bisimilah di sàkku ñaan nag ci mbokk taalib yi nga xam ne dégg nga ànd na nag ñoom ñëpp te ñaanal leen yàlla ñëpp xam nañu ñu daay dafa ñu xadara kon abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly abonnez sur kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kese la si di baram